alors finalement euh, euh, Ousseynou. Hmm. est-ce que euh, Aliou n'a pas raison buy wax ne ay dara cuune la et par la waa yeewi ci boppam ay cuune lañ parce que ils se sont finalement facilement piéger. waaw xam nga àddina moom élégance dafa baax ci lépp loo gis. Hmm. nit mën nga am xam-xam mën nga am alal mën nga am tur mais liy taaral sa jëmm. Hmm. du buñ dee wax jëmm c'est pas physique. mais disons sa dimension morale mooy élégance cest à élégance dans les paroles élégance dans les actes mm-hmm. Adama nee na Aliou Sall conseil la c'est son droit d'être dans la salle mm-hmm. mais Soham Wardini elle est conseillère mm-hmm. bi bi ñuy installé Barthélémy Diaz démb dafa dem toog ci chaise yi comme tous les autres conseils jàkkaarloog présidium bi bi ñu installé Barth ba pare mu yëkkati procuration am mhm. joxe ko dem yoonam pourtant c'est une maire sortante mmh. elle donc c'est pas parce que forcément tu es conseillère wala tu es mhm. lu la neex nga def mooy li may wax en fait am la loo xamante ni bu la ko yoon mayee mhm. sa ngor ak sa sa sa xel mu rafet warula ko may parce que attitude boo sa am woote wane defe bokkul te ñoom ñaan ñëpp ay maire de ville la ñu woon bokkul ak bu euh, bu bu bu Aliou mooy li mm. ma doon wax am na loo xamante ni bu dul dara di nga bu ñëwee ci terrain politique mm-hmm. cest à que prolongement campagne électorale la ñuy bañ ak compétition électorale moo tax Ahmed teg acte yu bëri envers Aliou Sall te pourtant bu dee compétition politique mën nañ ko continuer mm-hmm. mais limor Mor Diaw wax dafa am solo mm-hmm. article L273 du code électoral boo bëggee ma lire ko. aywa dafa ne L. L273. du code électoral du code électoral. Mm -hmm. les ascendants. Mm -hmm. et les descendants les frères et sœurs peuvent être membres d'un même conseil municipal s'ils sont présentés par des listes différentes leur nombre est limité à deux au sein du même conseil municipal. en termes clairs. sa yaay mën na bokk Yewwi yow ngay bekk bo bennoo mën ngeen bokk ci même conseil. mën ngeen bokk mais su fekkee eh, sa yaay ak yow yow ak sa yaay. ci même liste bi yeewi ngeen bokk mën leen a bokk même conseil mënul nekk te lii Mor Diaw wax disposition bi lañ rappelé préfet bi mu gëmm ci te li mu wax ci li ñu dégg. Mhm. ne moom lañ rappelé préfet bi. mu gëmm ko mu gëmm ko. et normalement cette liste ne devait pas passer je rappelle que nous à la Médina. Mm -hmm. on a bi ñuy def suñu confection list Mm -hmm. il s'est trouvé que ay frères. yoo xamante ni il devait aller sur la liste proportionnelle. Mmh. même père et même mère. mais kenn ki dafa nangu désister pour kenn ki jàll ci liste bi. parce que bu ñu demee du jàll. léegi nag ni mu def ba list bi jàll ça pose problème et je rappelle que. Mm-hmm. li Mor Dia wax liste Benno Bokk Yaakaar la. donc kon list Benno Bokk Yaakaar ci Guédiawaye validé nañ ko ak irrégularité mooy li mu wax te lii la code bi wax. kon liste Benno Bokk Yaakaar. waru woon jàll ca géejawaay. ba ñuy siégé. ba ñuy siégé di wax Aliou conseiller ak kii kii parce que bu fekkee ni ñaar ñooñu ci même liste bi lañ leen investir du yoon donc ça c'est le premier problème. Mm -hmm. attitude préfet bi lim ci wax ñun ñëpp dégg nañ ko. Mm-hmm. encore une fois Ahmed même s'il a 39 conseillers. oui mooy li ma wax sama njëlbeen wax c'est pas au pouvoir de chercher à être majoritaire quel est l'intérêt pour Aliou Sall d'être majoritaire dans ce conseil lui qui a été maire et foofu li Pa wax nag foofu la la la wax ji nekk dafa am loo xamante ni boo gisee yenn actes yi ak mm-hmm. yenn information yi pour nga def corrélation bi day yomb cest à ñoom seen jëmmi bopp du ñu mën a teggi tuuma googu rawatina Aliou Sall parce que article bi muy wax libération ko génne mm-hmm. et que même avant investiture bi la on parle de trois cent et quelques terrains qui ont été donnés ci ñi nekk ci conseil municipal bi et tout ça qui a maire de la ville de Guédiawaye c'est Aliou Sall donc kooku noonu nga xam ni tey jii mhm. bu ay Aïdara ñëwee que mu bëgg ko ñàkk ko bëgg dina def audit dina souvent nit ñi dañuy bañ audit mais audit c'est pas forcément que boo defee audit da ngay topp nit ki mais yow mii di ñëw ñu lay jox dara xam li fa nekk foog nga xam li fi nekk foog nga xam ko man duma nangu ñu jox ma liggéey boo xamante ni bu may jël fonction xaw ma li may jël et d'ailleurs passation de service sax bu ngeen koy def. Mhm. dina am yoo xam ne dañ la naan signaler sous réserve parce que xamagoo en réalité ce qu'il mhm. donc bu ñu defee audit te coowul suuf mu ngi ci lii libération moo ko bind du waxu Pape Matar du suma wax. Mhm. libération je pense que li muy révélé ci scandale ci Sénégal bari na. donc te liñ koy weddi bariwul aussi. duñ ah. ko weddi man mosuma gis. musuma gis <laughs> scandale ñoom la bokk <laughs> non <laughs> musuma gis je n'ai jamais scandale yi libération Euh, euh, wax. ñu li weddi ko ñu weddi ko. donc nag. Mhm. day justifier peut-être attitude du Aliou Sall parce que nag koo xamante ni euh, xam naa nag il ne peut pas pardonner ay dara mhm. benn fait. mooy ban yeneen yëpp mën na ko ko baal peut-être gam gagné gi mu ko gagné parce que gagné ak ñàkk gagné ci loxo yàlla la nekk. Mhm. mais am na loo xamante ni ay dara daf ci daf ci taxaw. mooy Ahmed Aïdara tax na. ba sénégalais fàttewuñu ni Aliou Sall dañ ñu ameel 400000. il le rappelle tous les jours te moo jël suñu pétrole ak suñu gaz. donc xëy na loolu. nekk na loo xam te ne mënu ko pardonner donc mais nag li ñuy wax. Mhm. gis nga tey jii si Aliou Sall empêche à ay mhm. dara de travailler il na le fait pas à Ahmed Aïdara mais il le fait aux populations de Guédiawaye ñi nga xam ne ñoom dañu sentir ni Aliou Sall doy na. Mhm. ay dara moo leen doy. te li ñu bëgg a ruuma naat ni ci ay délégation spéciale duñ ci buñ ci dugg tu sais pourquoi mhm. dans ce pays on ne va plus accepter que ñu confisquer le choix des citoyens on va plus accepter sa alors dinañ ci ñëw léegi délégation spéciale boobu mais est-ce que euh, Adama Fall euh, euh, parce que loolu la ñuy wax ah que ni def naa liir naa ko ci benn journal ci suba que ni Ahmed Aliou Sall daf ko piégé est-ce que dañu war a résumer la politique dans ce pays piégé na ko Euh, deal nañu il est plus intelligent est-ce qu'il n'y comme l'a rappelé je crois maam Biram xaw ma euh, euh, benn éthique bu ñu war a garder quand même dans ce qu'on fait. c'est important mais bëggoon naa parce que interpellation yi dafa bari. bien sûr allez-y allez-y bëggoon naa ci parce que j'ai pris beaucoup de notes. oui et bëggoon naa ñu am Benno Bokk Yaakaar bu bu bu Guédiawaye. non on est en train de chercher. te sincèrement maa ngi lay remercier ci équilibre oui <laughs> si on trouve la salle c'est encore mieux disponible il n'a qu'à que benn c'est difficile de les faire Pape Matar da ngay jéem a développer ce que je le remercie parce que quand euh, dafa am déclaration yu génn par rapport à ces à yi nga xam ne ñoo bokk ndey ak baay doom ak yaay mhm. am na peut-être lu ci waa Guédiawaye am nañ ci explication am nañ ci explication bu ci jox pour ñu mën a joxee explication boobu parce que yaakaar naa ni. Euh, mm. préfet bi dee seetaan ils peuvent naa ni préfet bi warul jàll liste bàyyi liste boo xamante ne dañoo am ñaar ñu bokk ndey ak bàyyi ñu bàyyi leen ci biir liste boobu. d'accord allez-y Adama non li li ma li ma yaakaar la. donc euh, suñu moom na ma yàlla sama sama sama sëriñ dafa wax ni. Hmm. waa wàllu. Hmm. opposition la ñu féete. dañuy fàttaliku nii dañu mhm. dem dañu dem dañu dem élection waaw wallu am listam mhm. wallu su nekkee ci day dugg ci biir conseil municipal pour voter yeew yi mhm. dafa waroon ànd ak waa yeew yi ci biir élection yi man loolu laa jàpp waaw suñu duggee ci biir conseil municipal j'ai dit j'ai déggoo li ma la wax c'est valable pour tout le monde ku ci nekk danga am sa liste di dem oui suñ demee su nekkee dañoo war a dugg obligatoirement dañu war a voter yeew yi je me kon jarul loon ñuy ànd ak seen def seen liste di dem ci biir élection ci biir conseil municipal. Mhm. négociation la. Ahmed mais est-ce que négociation yi du du du du résultat du confisquer le vote Ahmed n'a pas ah. su négocier. d'accord. gis nga. Mhm. lii xam nga lu muy wane. Mhm. manque d'expérience politique de Ahmed Aïdara. parce que fii kenn confectionné wu victoire kenn. parce que Ahmed Aïdara a été élu maire de Guédiawaye. Guédiawaye. Ahmed Aïdara la ñu fal seen maire. oui c'est clair. Mm-hmm. donc kenn mënul confisque victoire u Ahmed Aïdara hmm. kenn mënul confisquer victoire u benn yeewi yeewi askan bi hmm. mais dañuy dugg ci biir conseil municipal bi nag pour hmm. élire moo tax euh, sooy fàttali moment bi ñuy nekk ci dialogue bi dañ doon wax est-ce que conseillers yi duñ ko duñ leen élire au suffrage universel direct est-ce parce que le débat s'était posé c'était c'était posé benn benn moment absolument suñu posé woon débat boobu peut-être yii du am mais limite bi ñuy am mooy est-ce que dañu naan avant les élections diw mooy nekk adjoint diw mooy nekk adjoint diw mooy nekk adjoint mhm. donc il faut parfaire euh, ce texte là pour mën a apporter les corrections am na insuffisance moom loolu moom kenn te je pense que mm -hmm. avoir une liste majoritaire mhm. au niveau des villes mooy régler le problème liste majoritaire ci villes yi ci villes yi à l'avance yaakaar naa ne loolu su amoon mhm. du ñu am problème bi d'accord du ñu am problème léegi est que li li mu wax li te Kéba waxoon ko que ni euh, li ma en résumé les textes peuvent être très bons mais suñu amul une classe politique buy wane un minimum d'élégance ci muy def du sotti vous savez mhm. l'élégance est importante mhm. mais nee la en matière électorale et en démocratie majorité la waaw démocratie c'est la loi de la majorité ah la loi avant tout oui mais majorité la loi électorale avant tout non cest dire loi électorale moo définir majorité mhm. n'est-ce pas donc euh, dafa am loo xamante ni su majorité amee rek négociation du am leneen du am. Mhm. aujourd'hui nous avons constaté li ñu constaté mooy la Yewwi n'est pas majoritaire à Guédiawaye. tout comme Benno. tout comme non c'est-à-dire suñu jëlee en terme de commune. oui en terme de commune le Benno est majoritaire parce que ñoo gagné trois communes qui gagné deux mais sur la liste de la ville. ils mhm. ne sont pas majoritaires donc majorité génnul ci biir Guédiawaye. Mhm. xam nga lu ko doon réglé wax naa ko sànq une liste majoritaire raw gàddu am ñu buub ñu yóbbu parce que loolu mooy régler la question des élections locales mm-hmm. maintenant ñëw toog di di di expliquer ay affaire suuf chaque est de donner ses interprétations chaque ci ñun ñu toog ku ci ne rek sa xalaat ngay joxe mais nu savons que nu sommes en élection mm-hmm. le Benno Bokk Yaakaar a senti que mën na def hold-up wala dëbb la ko tuddee. oui <laughs> très bien. xam nga tax xam nga tax. Mm-hmm. on a que deux conseillers la ma rawee. deux conseillers ba ma rawee te hold bu mag bi xam nga kañ la am xam nga hold bu mag bi kañ la am mm. ba ñuy voté jour on la suivi ces élections en direct sur les réseaux sociaux. alors Pape Makhtar leneen la yaa ngi doon tudd sax affaire suufa gi demee noonu mais bari na ñu ne euh, à Guédiawaye euh, c'est l'argent qui a affaire. dama ne am na ñu ko wax mm. c'est l'argent qui a parlé pour ne pas dire que yenn conseils yi dañ leen jënd comme ni jëndi xaru tabaski est-ce que loolu yenn waanaa euh, gis nga gis nga Moustapha mm-hmm. Euh, c'est terrible quand même de faire un débat avec des gens de Benno mais yaakaar naa ne bu ñu ba ñu ah ba ñu waxee ba ñu waxee waaw c'est ça aussi ouais. malheureusement ba ñu waxee que ni euh, <laughs> Benno dafa def hold up mm-hmm. hold up ci wolof mooy sàcc hold up mm-hmm. amul beneen signification lu dul sàcc loolu rek la tekki wolof loolu la def loolu la lool la koy loolu la koy loolu la koy tekkee. ul dëpp sàcc bennoo dafa sàcc ca géejawaay débat bi fa la waroon yam ñu jël beneen sujet kon. mais sincèrement sur le plateau fii nañu toog ñu dégg ko. ñu ne ñu bennoo bokku yaakaar bennoo bokku yaakaar dafa def ol dëpp fële ca géejawaay. ol mhm. dëpp maanaam bennoo bokk yaakaar dafa sàcc ca géejawaay daa jeexati ñuy débat c'est-à-dire gis nga Ahmed Aïdara bu duggee wax saaga wàcc na parce que Sénégal gii moom wax dëgg yàlla wax fi saaga moom euh, du dara gis nañ fi koo xamante ne tey jii mooy njiitum réew nekkoon na fi premier ministre dem di voté yorul carte d'identité waaw ba mu duggee gars yi di wax dafa saaga forcé voté par force gën dem yoonam. daaj bunt bi kenn waxu ci tey jii mooy njiitum réew il faut ñu arrêté ak seen affaire de bienséance ak ay di joxe ay leçons Benno Bokk Yaakaar n'a pas de leçons à donner ils ont des leçons à réapprendre dem jàngi ay principes comme ni ko Mame Birame waxee. xam nga tey jii bu ñu toogee fii. ñi wax ko dañ fay dagg mais dañuy dagg assemblée di dagg ay audio di paasante yow wax nga fi bii paase koo xamante ni nee na ñu ko daggalee da koo jël transfert ko président de la république. waaw. donc am na yoo xamante ni vraiment vraiment vraiment dañu dañu mal placé pour jox nit ñi ay leçons. ne waa ji dafa saaga Ablaye Balde Ablaye Balde jël ko transfert. transfert ko président donc vraiment dañu dañu dañu mal placé pour jox nit ñi ay leçons xam nga mhm. ni nit ñoo xamante ni xool nañu tànn nañu ni kii nañu bëgg jël def ko maire nga ni non non non kii du falu parce que bu faloo du xaalis de parce que lii mën nañ la fi ñoo xamante ni ay député mais mais kii lañ bëgg a def maire kenn discuté wu ko ah. am na d'accord d'accord mais xam nga xam nga xam nga. ku loolu moom du li Aliou Sall bañ parce que mënu ci dara. xam nga mission la ak moyen. bu ñu la joxee mission foog ñu jox la moyen yi ngay atteindre sa sa sa sa say say say objectif. d'accord na moyen yi tey jii mooy conseil bi parce que moom mooy euh, instance décisionnelle bi. Mhm. mais bu ñu fexee ba loolu mënut am. te ñoom jaaruñu ko fenn du xaalis parce que wax naa la fi am na ñoo xamante ne tey jii. Mhm. ñu ngi ci PDS ay député nañu ñàkkuñu du ay 2 millions francs nañ leen di jënde mhm. mais ay scandale suuf boo xamante ni tey jii bu ñu daan ñoom ñëppay daanoondoo moo tax ba nanguwuñu dem voté li nga xamante mooy Ahmed Aïdara du ma tudd turam mais xam na boppam. bëri na tey jii ay député yoo xamante ni wala actuellement ñoo xamante ni ñu ngi ci conseil yi. Mhm. nekkoon nañ fi député nekk nañ fi peut-être sax ci euh, euh, législature bi député tey jii du 2 millions wala 1 million nañ leen jëndee. parce que dañu bokk ci scandale foncier boobu xam nañu ni. Mhm. bu Aliou Sall di daal ñoom ñooy àndaanoonoo tey jii Aliou Ahmed Aïdara gagné li muy gagné ñu wax ko tegal benn équipe boo xamante ni dafay suivre vision wam parce que gis nga. Mhm. bu ñuy jël benn opposant di ko teg. Mhm. c'est parce que dañu rejeter li nga xamante ni mooy vision bu ñeneen ñi. Oui. bi nga xamante ni dafa war a nekk autour du maire. dafa war a boo xamante ni dafay suivre au moins sax. du Ahmed Aïdara mais mais au lieu de de de critiquer Alioune Sall. de critiquer Benno Bokk Yaakaar ak Guédiawaye est-ce que waruñu dellu la waral coow li mooy ni ñu falee te ñu yaakaaroon ne fal maire yi au suffrage universel direct ça va régler problème et là on se retrouve avec plus de problèmes en tout cas pour les villes est-ce que du loolu c'est-à-dire que je bi permettre Aliou Sall ak waa Benno ñu mën a def li ñu def Guédiawaye est-ce du moom moom la ñu war a waxali au lieu que ñuy waxal Aliou Sall. waaw mais loi boobu ñoom ñoo ko teg parce que xam nañu mhm. ñoom ñoo toogoon. ñun ni dañuy jéem a fexe ba li nga xamante ni moom mooy nañuy tabee maire bi ñu changé ko mais conseil duñ ko changé boobaa mhm. bañ koy wax période boobu ñi honnête ñi dañu ni carrément que conseil nañ ko changé mais ñi nga xamante ni ci ay deal ak ci ay hold-up la mhm. parce que effectivement mën nga perte bi mais mhm. ngay def say affaire def ay hold yooyu noonu ba fexe ba li nga xamante ni pertoon nga ko sa main droite nga récupérer sa main gauche loi bi ñoom looloo tax nanguñu ko laal parce que am na ay situation yoo xamante ni ñi ngi ko doon prévoir ne woon nañu ne am na situation yoo xamante ni fii mën nañ ko gagné donc loolu doon problème mais fi ñu mënul gagné dañuy fexe ba ñu récupérer li nga xamante ni mooy conseil bi ba kooku dañ koy teg ba du mën a liggéey hmm. euh, euh, du ma du bañ li ngay wax parce que je discutais avant may dugg fii ak benn expert sur ces questions là mu ne ma bi ñuy def concertation yi moom il avait averti que ne fii lañ jëm avec les villes mais à l'époque euh, le pouvoir n'en voulait pas non ñoom ñoo ko bëggoon te beneen bu ñu créé sa disparition wala nga dee kan moo lay wutu buñ créé sa disparition wala nga dee moo tax mën la ñoom ñoo ko tey <laughs> parce tey jii maire bu fi nekk bu fi décédé uh-huh. conseil bi mooy falaat maire bu fay nekk waaw ça ça c'est également surprise loolu du que euh, bu fekkee ne tey euh, euh, la non du ma tudd benn su fekkee dafa am benn maire Barthélemy rek Sacré-Cœur exactement Sacré-Cœur ce qui va se passer c'est que démissionner pour dem à la mairie mais waa Sacré-Cœur duñ voté waat c' est le ah, conseil municipal qui va se réunir pour fal beneen maire bu remplacer Barthélemy et y' a aucune garantie que waaye yeewi askan wi ñoo koy gagné waat. aucune Moustapha Moustapha loolu mooy tax man la c' était fait à dessein parce que Macky Sall bëggul woon opposant di ko jiite fële xam nga maire moom Sacré-Cœur <laughs> mooy commune Macky Sall fële dëkk bëggul woon Macky Sall bëggul woon opposant na xam nga Barthélemy Diaz yàgg nay décliner ses ambitions Pape Matar nga dee de yow di nga dee ak Macky <laughs> mais fii Adama ñëppay décédé. mais Pape Malick sa mais bu nekkee bu nekkee bu nekkee parce que am naa ay ay ay contradiction ak Macky rek da may yéene dee man. maa ngi lay ñaanal gudd fan ak wér gu yaram moo moo terre à terre bu fekkee dañu am contradiction ak Macky Sall. waaw ñëpp a war a boo deful ndànk Dakar suba carré bi. yow ñaanal ma gudd fan ndax bu may dee lay tam.